mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ñoo ngi fii ci Malle nekk ci commune bu Sire département bi nga xam ne mooy département bi nga xam ne moo di Louga nekk ci arrondissement bu Kër Momar Sarr ngontug di Jamil bal na Serigne jek ñu ngi jàkkaarloog mu Amadou ndjay yeen en direct yi nga xam ne and ak YouTube bi nga xam modi Mbadiar TV ko ko sen radio régional RTS pour Louga FM 88.7 Serigne Modou ndjay ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziar la baax aduna ah, bepp ñu ngi lay seetaan ñu ngi lay jox rek nga nuyu wax ñu bis bi nak ngeen ko taxawale ba egg si Bismillahirrahmanirrahim. ngi leen di nuyu leen ziar jox daayira bi. nuyu waa Malla yëpp ak di nuyu autorité ak gan yi fi ñëw yëpp daayira bi ñoo taxawal lii ci seen ndigalal kilifa di Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour Sy Djamil waaw dëgg yàlla daayira bi ñu ngi ko taxawal depuis 2011 ndigal loolu sëñ Mansour si jëpp mu jox ñu turu daayira bi mu tudd Xayru wal Baraka. mën nañu xam at bi ngeen ko jël. at bi 2011. en 2011. waaw waaw en 2011 dañ jël turu daayira bi. boobu ak léegi wax dëgg yàlla ñu nekk si boobu ba léegi bàyyiwul benn yoon. ànd ci ak ak suñu ay xale ak suñu ay mag yëpp. yàlla def man ma nekk président bi. boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu jàppale ma ci loolu woon. boobu ba léegi yaa nekk président. boobu ba léegi maay président daayira bi. Hmm. ñu jàppale ma ci loolu bu baax a baax a baax. dëgg yàlla ñu leen si nuyu di leen sant bu baax di leen si ñoo def gis nañ seen taxawaay. Hmm. ah bis bi nag. Hmm. bis bi yombul. ngeen ànd ko présidente jigéen ñi daal. waaw ñu ànd seeg présidente jigéen ñi muy Ndeye Khady Gueye. bis bi yombul woon. dëgg yàlla dem déplacé wu nañ bu dem ba Dakar fekk suñu ay kilifa ñu jox ñu si ndigal ñu waxtaan seeg ñoom bañ a jàpp date bi muy le 18 juillet bi waaw kon tey bés bi nii rek la mën a demee ah ñu ngi delloo di leen nuyu yéen ñëpp. bu fekkee amul leneen loolu ci. laaj mooy daayira bi ndax yéen a ngi def guddi ajuma yi ak ni nga xamee ne la ko daayira soxla programme daayira bi. altine la ñuy daayira. Mm-hmm. alxames ñu def réunion bureau. Mm-hmm. chaque un mois dañuy def assemblée général am ngeen cotisation wala. si am nañ cotisation. Mm-hmm. cotisation yi. dañ ko dañ ko catégoriser. par catégorie la. cotisation rek. waaw am nañu par catégorie ñu ko def. waaw ci génération ku si nekk ak li war a cotiser waaw dëgg yàlla boobu ba léegi ñoom ñëpp si yàpp ci bu ndaw ñi ndax yéen a leen programme comme seen bàyyi niñ si nekkoon da nga xam ne mag ñu baax ñi ndax defoon nañ ci benn émission ci mag ñi jaar jaar ndax préparé ngeen seen ndaw ëllëg waaw ci loolu ñu ngi ci ñu ngi bay baax baax baax mm. ndaw yi mu jiwuñu poussé bu mu ñu ngi ciy jàpp bu baax baax di waxtaan ak suñu ay baay ak suñu ay baax a baax a baax a baax. dëgg yàlla macha allah daal macha allah. gis nañ ni Malla dafa daan def am gàmmu. tey ngeen def ngonduk Seydi Djamil ndax du indi benn différence si diggante bi. non non non parce boo gisee loolu tax ñu organiser lii. dafa nekk li nga xam te gàmmu dafa gëj am ci dëkk bi lool. Mm-hmm. depuis Covid bi amee la ñu arrêté woon activité yëpp. Mm-hmm. yàlla def. Euh, ab te commencé waat ko tabaski ñëw na ñu dem ni pourquoi pas ñoom suñu biir mën nañu organiser bés jagleel ko Cheikh Seydou Mouhamadou Moustapha looloo tax ñu dem waxtaan ak suñu ay kilifa ñu jox ñu si ndigal ñu ñëw organiser lii jërëjëf sëñ Mamadou Ndiaye gis ngeen euh, nii nga xamee tabaarakallaahu yéen a jàkkaarloog mbaaru màlla wi Balla nag mi ngi nekk ci commune bu Kër Momar Sarr département bu Louga ni ma leen ko waxee si ngeen nag ndeysaan jamono bi gis nga suñu mbokk yi politiciens yi ñoom itam bi ñu eggsee jaar nañ fi saafonte ak ñoom ci turu ki nga xam ne mooy imam bi